Euh, du nekk di déggook moom parce que boo déggoog moom xëy na euh, du yow rek yaa euh, yaa koy xelal du ñoom rek ñoo koy xelal. Hmm. mais justement wax ci fan yi mooy bi nga nee génn nga Mansour fay di Magu fay Faye def interview ak sunu mbokk yi l'observateur yi ŋàññ li nga dem ci TFM toog fa ne génn nga APR nee na waru la te waroo ko woon def sax faf waroo ko woon waxee foofa du nga doxalee waroon ko woon doxalee moom Mansour Faye ancien ministre itam. waaw moom sax xam nga wolof moom dafa bëri diplomatie waaye moom li mu wax mooy daanaka man traître laa damaa trahir suma grand frère. Euh, normalement waxu Mansour Faye moom waruma ci sax tontu ndax euh, dafa mel ni mbaam buy ŋaax rek nga xam ne euh, yàgg na ko def saa yu génnee làmmiñam saa yu waxee rek nit ñi ne ba di. Euh, tëj seen nopp yi su waxee wax musiba su waxee wax lu ànd ak reewaange su waxee wax loo xam ne amul richesse maanaam médiocrité ak wax ju superficiel ak wax ju yemul maanaam loolu la tàmmal sénégal yi ba tax na mënoon naa bàyyi mu jàll rek waaye nag dafa ma laal parce que su demee bay dugg ci sama relation ak koo xam man ak moom ñoo bokk ndey ak bàyyi moom mu nekk goro rek waroon na am mm, seetantal tuuti. wala mu am jom tuuti compte tenu de moom euh, li ko Macky defal defal ko ay ñoñam fukki at ak ñaar teraanga bu nekk mu am ko ci nguuru Macky te dara waralu ko lu dul nekk goroom Macky du njàngam du jomam du mun politikam am du kàddoom gu jàkk du kàddoom gu rafet du mën liggéeyam kon nag situation bu meloon noonu bu amoon waroon na am retenu bañ a dugg suma diggante ak Macky ma fàttali ne man dama ko bëgg ngir yàlla jaral na ma ma def sacrifice yu bëri ku dem ba ne na ngay génn APR waaye tey jii Macky bu taxawoon nga woteelaat ko kooku war nga xam ne trahirul Macky Sall waaye nag dama jàpp ne xëy na moom daf koo yomb muy ut beneen sant xam naa bëgg a tudd Mansour Faye Sall man nag yomb ma may changé sant ki ci changé bàyyi waaye moom xëy na yomb na ko bu ko neexee mu def ko ba pare tamit euh, ma koy yëgal ne wàllu traître bi mu ma ko waxee daf ma métti lool ndax. Euh, traître lu ñaaw la dama dem sax ba tijji livre état civil su may waajur ak su may maam xool lu tax lan moo war a mën a tax rek Mansour fay mun a am sañ-sañ man Aliou Sall mu may tuddee traître xëy na da ko gis ci man wala su may waajur wala su may su may su maam waaye bi ma tiddee livre état civil yooyu gisuma ci benn yoon trahison maanaam lu ñuy wax trahison wala traîtrise parce que ñaari moo la yu jege. waaye yu wutee waaye ñaar yooyu gisuma ko sumay waajur gisuma ko sumay maam dama koy ñaan nag moom it travail d'introspection boobu ma def moom it na ko def xool ci ay waajuram ak ay maamam xëy na daf ci am loolu moo tax ma mu koy tuddee waaye man lu sori traîtrise la lu sori trahison la parce que judduwuma ci loolu yaruwuma ci loolu xamuma loolu. Hmm. Euh, mais euh, ni nga koy euh, tonton nii ni koy waxee nii sa digg ak Mansour Faye dafa mel ni. yéen ñaar kon bi Macky yore nguur gi da ngeen doon maslaa rek waaye euh, da ngeen yàgg a safaanoo mel na ni su ma juumul am déet. non man loolu sax moo ma jaaxal parce que Mansour Faye sequñu dara ki nga seqalul dara mooy koo xam ne nekku leen xarit waaye nekku leen noonu maanaam sequñu dara du ñuy fréquenté wu mosul dugg suma kër mosuma dugg këram mosuma am soxla ci moom. moom nag mos na am soxla ci man benn yoon ne ma ay xale yu jigéen ne ma dafa bëgg ma dimbale leen ci marché communication ba ma recevoir xale yu jigéen yi boobu maa ngi nekk DG caisse de dépôt ca laa leen dàq ne du leen ko jox ndax coleen gu ñaaw gu ñu sol woon waaye man mosuma am soxla ci Mansour Faye donc mënuma comprendre moom muy am liberté euh, doon euh, di ñëw di ma wax ay wax yu ñaaw yooyu donte man am na lu bëri ma xalaat ci moom ndax ay acteur public Euh, mu yor ay charge publique am façon bu mu ko yoree waaye retenu laa amoon ak kerse ci Macky Sall ba tax na yenn yi duma ko tudd mais jaar jaaru Mansour Faye ci nguuru Macky Sall bokk na ci li gàkkal Macky Sall d'abord ci arrogance bu mu amee bu feeñee ci écran rek kanam gi mu ngi wone arrogance bu waxee yow xam nga ci dara jàkkaarloog naa yow nga posé question na mën a dala yóbbu kaso kon xam nga ne kooku du nitu dara euh, mënoon naa tëb di ko wax géré na wàllu hydraulique Sénégal aujourd'hui c'est la catastrophe surtout ci li nga xam ne mooy hydraulique rural Sénégal li ñu xamoon mooy forage yi communauté yi di ko gérer état bi di ko financé ak communauté yi di ko financé ci gestion am la ñu jël concession yu bëri jox ko ay opérateurs privés yoo xam non seulement investir investiruñ ndox ma qualité ba baaxatul ba pare euh, ñu nangu gestion bi jox ko ay privé man ma yàgg koo dénoncé ci biir. bon après ça aussi hein comité local de gestion yi tamit dafa bëri woon problème. amoon na problème loolu kenn du ko wedde waaye li am léegi moom c'est la catastrophe ni ma ko waxee doon naa ko jéem a dénoncé sax ci biir waaye comme ni ma la ko waxee man APR suma kàddu amu fa woon doole lool. Hmm. moo tax bu demee banaan ma day waa cercle restreint am na lu ñu warul def loolu daf may jàppale man mosuma bokk ci cercle restreint. ah loolu nu mu demee Macky Sall sa mag fukki at ak ñaar mun naa la wax Babacar ñu jàkkaarloo li ma def tête à tête ak Macky Sall ëppul ñetti yoon benn yoon bi fàtte naa lan la waaye ñaari yoon yi attends attends Aliou Sall euh, nga ni fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar Macky Sall bi nga bokkal ndey ak euh, weetu leen ñetti yoon weetu ñu ñetti yoon man maa la wax lii ñoo weet nañ ñetti yoon waaye weesuwu ko li ci des lépp su suñu gisee ci mbooloo Euh, mbooloo lay doon mbooloo famille wala mbooloo délégation AMS wala mbooloo APR wala leneen xëy na sax yeneen saa yi ma profité ci réunion tas ma kar ko jéem a wax ak. mais loolu tamit. waaye fukki at ak ñaar laa la wax. wéetoo maag Macky Sall këram ñaari yoon laa ko dugg. mais loolu tamit Macky la de. këram këram ñaari yoon laa ko dugg loolu du Mansour Faye du Mansour la dëgg la waaye li ma la bëgg a wax mooy bokk ma ci cercle restreint xam nga koo xam ne doo koy gis mënuloo bokk ci cercle restreint Euh, pourtant du bañ ko bëgg de ndax quand même man am naa expérience politique maa ngi politique depuis bi ma amee 15 ans euh, yàlla def na 2098 bi may commencé génn ànd jëf Macky Sall doon na ma déglu bu baax boobu ñoom ñu bëri ñuy wax ni naan damaa trahir suma mag ñu ngi woon ci leneen ñu ngi woon ay Europe di def ay trafic diggante réew ak réew ba di ci am ay problème sax loolu sax seen problème la ñoom waaye maa ngi woon fii liggéey ak njàng moo ma surale Macky Sall waaye Macky Sall mooy seen dundukaay maanaam dañu mel ni sangu si ci moom bëgguñu kenn ku koy wax dëgg. wala ku koy wax beneen xalaat di ko jege ndax yaakaar nañ ne soo ko waxee. dëgg la responsabilité Aliou Sall la responsabilité la responsabilité de Macky Sall aussi. lu tax lu tax mu doxalee ak yow noonu. Babacar Macky Sall bu reyoon nit sax suma mag la Macky Sall su ma gisul woon sax ñaar fukki at ak juróom il va rester Macky Sall suma grand frère. nga te moom it dafa mel ni xam nga dafa am ñoo xam bu ñu amee ñaari jabar benn jabar bi lakkal leen lool keneen ki. lu mu wax rek mu ne waaw ñaari choix lañuy am. xabaar yi daan am mooy itam euh, sa digg ak Mariam Faye neexul euh, est-ce que moom da nga koy boole ci ñi nga xam ni danga jàpp ni dañ la doon xeex féewale la ak. non vraiment du ma ko ci boole euh, xam nga nit mën ngeen bañ a juboo ku nekk jàpp njaamuram boo koy wax lu ñaaw sax wax ko ci secret loolu amul problème man loolu du ma ci tontu wax dëgg yàlla soxna la ci sama mag. donc ma boobu man moom lay garder donc du ma ko tudd du ma ko taas du ma ko xas xanaa mu yeewu donte nag euh, am naa yu ma war a mën a wax waaye bu yeewu woon tey ji wax ma dara kon danaa ko wax lu mel ni xeme waaye waxu ko nag ba ma dégg ko donc loolu tamit man damay am retenu bañ koo tontu ci loolu dama koy jël rek comme suma soxnaay mag donte comme ni nga wax nekkul suma xarit Euh, waaye loolu moom du tere àdduna bi continuer. mais qu'est-ce qui s'est passé parce que yow. loolu mbiru mbiru famille la du ma ci wax. oui oui d'accord mais Mansour Faye aussi c'est la famille. non Mansour Faye bokkuma alliance Mansour Faye bokkuma ak moom dara. fay la sant ma sant Sall su bëggee sant Sall nag na dem négocier kook ki man xatalu ma ko fa donc vraiment bokk ma ak moom dara. mais da nga meloon ni ku bëgg ku euh, bëgg normaliser sa relation ak Marème Faye. tudd nga ko sax doom. waaw loolu Marème Faye déggoo lu ma lu tax seen problème euh, réglé wul. déggoo li ma la wax ma ne la mbirum Marème fay duma ma ci wax parce que jabar soxna la soxna sama grand frère la duma ci wax tey jii duma ci wax lu baax du ma ci wax lu bon.